Assalamu sama wa tim tim sama Adja Traiteur sama bande wani ak ak c'est une histoire d'amour diana len ramadan mubarak à tout le monde rawatina suñu partenaire de tout le temps le groupe agroalimentaire Seifa man ak ñoom ak seen ay produits dinaa leen defal vidéo spéciale ngeen xam njëriñ bi nekk ci produit Seyfa yi tey nag dama leen indil comme ñu ngi ci début koor bi on commence ak tàndarma yi dama leen indi recette date fourrée muy recette bu neex bu doy waar aca ñu dem ingrédients c'est simple mi ngi nii tàndarma mais bu tooy bi nag tàndarma bu tooy moo mën quelques cuillères de poudre euh, lait en poudre euh, beurre aussi à volonté parce que ça dépend la quantité tendre bi ngay defar ñaari sachet sucre vanille légui nak gis ngeen suñu compagnon de guerre café Seifa ku ne wéru koor ne café café seg Seifa bisaab aussi amna vimto amna ordinaire donc suñu ingrédient dal mo ngi ni tay defuma mesure parce que ça dépend ci nit ñi nu ñu tollu

ah c'est hyper délicieux dama leen koy conseiller comme ñu premier jour weeru koor bi ñu commencé recette yi ci tandarma. yi instant bi dindi nañ xoox yi nekkoon ci biir yépp dañu ñëw daal di defar suñu pat bi nga xamante ni moom la def ci biir tàndarma bi def ci ñaari sachet sucre vanille ku mu neex nga ban ci sax def sucre parce que tàndarma déjà dafa am sucre donc boudé da ngay togol ñoo xamante ni bëgguñu sucre mun nga ko ci bañ def daal di mélanger d'abord mew bi ak sucre bi ba mu maase nga daal di jël sa beurre di def nank nank nak parce que bu toyé ba ëpp do réussir sa recette motax ma def nii suma défé ni nii yëngalé man dina xam nak beurre bi doyna ou pas mesure aussi joxé mako parce que mi ngi dépendre ci nombre de dates yi ngay defar lu bëri wala lu yam gis ngeen beurre bi par nank ngay def ba am pat bi nga soxla gis ngeen ma daal di yëngal jël sama kuddu daal di yëngal gis ngeen nii neex na boo amee gan bu ko jommal nga daal di changer tuuti defar ay date fourrées au lait moom daal moo ngi nii daal recette baa ngi nii gis ngeen pat bi nii la war a mel du ndoxe dafay dan comme ça parce que dañ koy war a dang pour former ay muul yi nga xamante ni day nuru ak xooxu tàndarma yi ñu génne ci biir gis ngeen nga daal di tibb daal di koy dang pour mun a am forme tàndarma bi gis ngeen. man li ma dànku sa dafa bari xaaral ma wàññi ko parce que lii moom day ëpp tuuti ci tàndarma bi gis ngeen nga dagg ko dànku ko plutôt bu leen fàtte bi sa sayfa bi jël sa ndox amul ndox bu tàng amul dara jëlal sa ndox sotti poudre bi sachet bee am 12 litres de jus gis ngeen ni tàndarma bi xar naa ubbi ko dangay def nànk na balaay tàndarma bi di tas nga daal di placer nànk sa pat bi nga doon defar gis nga nga placer ko daal di koy tapoté waat mu daal di collé wu jeex na nga daal di teg continuer ni gis nga continuer continuer ba defar sa tàndarma yépp je disais que bisaab sayfa bi sakkan na le sachet est à 1800 250 grammes nga am ci 12 litres de jus 100 naturel café bi pareil am na 250 am na 500 grammes 100 naturel dinaa ñëwaat ak ñoom ci seen ay produits gis ngeen bii dama ko le bu ndaw pour ñi nga xamante dañuy bëgg a def carrément effet surprise bi waaw day tëj day ndaw nga je ko ci biir tàndarma bi daal di koy tëj nga xamante ni boo ko tegee sa gan day xàmp rek daj afi ci biir la waaw donc choix la deux façons yëpp bi nga ouvert koy gis ak bi nga fermé gis ngi bon appétit